nee na mi ngi sant lu bu baax inspecteur mi ngi sant lu baax directeur bi nee na ndax li tax mu koy santlu daaw jéeg la bëggoon a toj bâtiment ba nekk fële tabax fa ñaari salle de classe yu muy def étage ñëw fekk nag ci sa xarañte ak sa njàmbaar état tabaxal leen ñaari salle de amatul fu mu def salle de classe daaw jéeg euh, le 25 décembre mu ne ginnaaw loolu nag Covid di jàll mu bëggoon na nag làbbali mébétam mu doon ñaan buñ ko ko mayee seen Mbacké 3 Baye Tamsir waxoon naa la ko bu ngeen ci waxtaanee ñu tabax fa juróomi salle de classe ci suuf juróomi salle de classe ci kaw muy 10 salle de classe. Euh, liggéey bi nag ñetti salle de classe nga ko doon ñaan ak juróom ak fukki tableau ak juróom-ñaar yooyu war a defarlu bi nga defaree devis bi de 1 million 200 mu ne la nga muy demandé jox la chèque bi ci kanamu kilifa yi ñu ne la. bul def loolu parce que baara xam nañ ko boo ko ñaanee benn mën na laa may fukk bàyyil mu tàbbi ci école bi defaral la lépp te yaakaar naa tey école bi jag na. ba mu ñëwee commencé ci trois salles de classe yële l'homme Ibou Mbaye gis la ses réalisations à travers les réseaux sociaux la ci def loxoom. ñu rafetlu loolu bu baax a baax a baax ndax boo jàngee si école wax dëgg liiw war la ca war wàcc na la boo defee jëf ju mel nii. ñoom ñu continuer avec les mêmes ouvriers l'ensemble des salles continuer ko ba fa seen doole yem baara booba toxoon na fi dem Cheikh Ibra Fall defar na fa classe xam naa jombul dina am bis bu mel nii. jóge fa dem brigade gendarmerie plan bi aussi ñu ngi koy jéem a réaliser mu ne nag nañ leer. liggéey bi tegu ko ci cadre politique soxlawul chef de quartier ci Mbacké na seen xel dal li mu bëgg mooy social li mu bëgg mooy lépp loo xamante ne yàlla dénk na ko mu partagé ko ak askanu Mbacké parce que mënta fay askanu Mbacké loolu cadre boobu ci la baara di dox ci lay wax je crois que yéen ma ko gën a xam euh, après donc c'est trois salles de classe yi mu tàmbale ñii association bi def dix salles de classe mu des trois salles de classe mu yeggale ko ci karo bi mu fi ñëwee ci màggal gi wàcc fi ñoo ak i tànkam ne dañu bëgg a pavé école bi ma ne ko non boo ko pavé du ñu am terrain bu ñu utiliser du ñu am barab bu ñu utiliser waaye nañu peinture école bi réfect intérieur ak extérieur dindi ardoise yi ñeent fukki ardoise ci ñetti classe yi nga xamante ne boo taxawee seen asamaan si mu dindi 40 ardoise yooyu changé ko defalaat installation électrique bi doog a ñëw ci douche yi douche bi bâtiment bi la fi bàyyi waaye la ca biir lépp la dindi muy fukki box ñu defaraat ko yeesalaat ko defaraat lépp la ca war dugal ndox ca robine ba ba mu dugg jàll si ci biir euh, toilette yi génne évacuation bi defaraat fosse bi doog a defar stèle bi te bu soobee yàlla danan fi démonter rajo boo xam ne dafay def lim national du Sénégal déjà c'est un nag yi mi ci oto bi ñëw donc euh, mu bëgg jàngalekat yi nekk en confort parce que jàngalekat ñun dañuy jooy di wax ne dafa war a nekk ci condition yu baax inspecteur xam na li may wax purine mu mën a def résultat bu baax mu ne leen dina leen may may na leen ñaar fukki chaise ak juróom yu confort pour seen réunion may na leen euh, congélateur boo xamante ne ba ngeen fa mën a denc seen lekk yu sew ak seen ndox yu sedd donc may na leen tamit matériel de nettoiement euh, ay brouette ak lépp li ñuy nettoyer jox na leen ko jox na leen nag sonorisation boo xam ne di ngeen mën a teg di def seen réunion sans autant ngeen loué jox na leen ay xotti bidon yu vide directeur pour ngeen di rose garab yi ak fleur yi également accompagné na ci ay fleurs ak i garab mu bëgg ngeen di ko jëmbat mu jëmbatu taxaw mu boole ci junniy masque yu mu jox xale yi waaye malheureusement man masque wu ma xëy na inspecteur moo fi masque waaye xale yi am ngeen junniy masque donc di ngeen masque wu forcément dégg mu boole ci ñaari ballon football boole ci ñeenti ballon jeu de mayo boole ci ay de euh, dossard jeu de dosar boole ci également ñetti ballu basket kon mi ngi préparer sport ci xale yi mi ngi préparer wér-gu-yaram ci xale yi mais également mi ngi préparer xam-xam ci yéen xale yi donc après loolu euh, mu am nag beneen mbir bu mu def mu xaw a euh, jàpp sunu xel ba dootuñu ko fàtte slogan ubbi tey jàng tey dafa jafe waaye am na slogan bu bees avoir du goût à l'éducation bien travailler à l'école kon Bara est de développement incontournable monsieur le maire de Mbacké nous vous le témoignons di wax ni école Mame Mor Diarra kenn impolewul ni mooy première école fii ci Mbacké kenn ku ne génn na fi cadre bu ne ci Sénégal génn na ci Mame Mor Diarra fii président génn na fi député génn na fi ministre génn na fi kenn ku ne génn na fi may wax ci turu parent d'élèves yi ñu commencé woon ko démarche yi ak monsieur Diop ñu xooloon école bi année yi ci ginnaaw mu délabré mooy école bi dafa yàqu woon fii classe bi boo doon jàng dangay ngay seen asamaan si classe bee élèves yi di ko woowee waañ bi mu metti woon lool directeur sortant ma koy remercier monsieur Diop ñu waxtaanoon ci directeur bu bees bi aussi ba mu ñëwee rafetal na lépp continué na liggéey bi defar na ko ndax comme li mu wax sànq bu lëg lekkee olam na ko gërëme coy moom mi directeur bu buñ ko joxoon xaalis mu ragal ko ci poosam kon école bi du egsi fii mu egsi kon nag ñi ngi remercier ñi defar école bi ñëpp di remercier euh, ñi nga xam ne ñoo jàpp ci école bi di leen xamal ni tamit yor sa xaalis dafa neex ku mu neexoon nga yor sa xaalis def ko sa poos di ko lekk waaye boo jàngee ci dëkk bi dalee baa ci dëkk bi màggee ci dëkk bi tekki ci dëkk bi delsi ci dëkk bi di ci def sa alal kooku kenn mënu koo fay kon ñu ngi leen di remercier di ñaaxal élèves yi aussi ñu jàng bu baax ba demee ñoom ñëw fii jël relève bi lii seen i papa ak seen i tonton ak seen i tata ci école bi ñu dem ba jël école Mamor Diarra def ko ay immeuble merci beaucoup je vous remercie. tey ñoo ngi gërëm bu baax ñi nga xam ne mooy amicale bu ancien élève Mamor Diarra ak monsieur Bara Gaye ci geste bi ñu def mu nekk geste boo xam ni dañ koy rafetlu bu baax a baax surtout fu ñu ko def fi muy symbole parce que fii mooy première école de la commune ñu ñëw def ci investissement bu am solo. maire bu fi nekk muy monsieur Diaw def na fi effort yi am solo wax nañ ko léegi mais ñëw ngeen dolli ci loo xam ne tamit tax na ba école bi tey na kanam koo gis am mbégte ba jàngalkat bu fi ñëw tey war a jàngale da nga am motivation pour war a jàngale donc loolu je crois am na solo trop moo tax ma lu bu baax a baax geste bi ngeen def di leen féliciter di leen remercier ci turu mbooloon ni nga xam ni ñoo fi nekk muy parents yi muy élèves yi muy enseignants yi di ñaan nag geste bi ngeen def mu mën a law ci yeneen yi ba nga xam ne fu ne dina mën a am ay amicales yoo xam ne ñoom it dañ jàpp mën a développer seen école pour Bara Gaye dafa naa ci ouverture bi jotoon naa ko wax dafa nekk koo xam ni wax dëgg yàlla taxawaayam rafet na ci fànn yu ne du tey rek la ko des ma fi ñëw je crois en 2017 fekk naa déjà joxe woon na benn loo bu am solo ci kay daaw rek ci ci examen yi soutenir na xale yi ci examen yi joxe ay restauration joxe ay masque lu nangu def ko pour xale yi mën a optimiser seen chance de réussite. donc bu dee kooku mën nañu c'est un grand militant pour la cause éducative yéen tamit ci loolu boobu ngeen bokk borom ñu leen di féliciter bu baax a baax di ñaan lii yàlla mën ñu jàppale mu gën a law ci euh, ci département bi ak ci région bi.